mais moo egg fii y a quoi avoir peur parce que finalement dama naan euh, yi ñu am pour anticiper wala gérer fan la ñu nekk et responsabilité gars yi fi jaar yëpp pour man c'est des responsabilités totalement engagées Engagé. ak le poids de la politique wala du politique aussi dans cette affaire la ban rôle la ci jouer pour retarder wala pour pour pour pour def ci yoo xamante ni waru ko ci woon a def et je pense que ne loolu ce serait intéressant pour ñu pour ñu pour ñu pour ñu mën a appréhender euh, mbir mi lan moo ci xew mais monsieur le maire ci premier bi muy commencé dafa wax wax ji yëpp nag mhm. waaye ci mujjantal bi laa d'accordul ak moom parce que dama jàpp ne euh, xam nga xam nga euh, li nga xamante ni moom moo tax ñu décider vivre en république mooy dañu bëgg suñu sécurité parce que volonté commune la de vivre en commun donc république sécurité sécurité armée waaye jusque là ñun li ñu xamoon mooy armée du intervenir sax ci biir dëkk bi day intervenir ci biti wala ci ay dans des conditions très spéciales mais li ñu mënul gis même du point de vue de la communication mooy armée bu taxaw di déguerpir et la vocation de l'État la vocation de l'État c'est pas de déguerpir c'est de loger ou de reloger donc même du point de vue de la communication pour man c'était chaotique image yi ngay wane effectivement tey jii ñi nga xamante ni yëpp dañu bëgg a nekk militaire man damay dem souvent zone sud patrouille yi di ma romb may xool ay xale yoo xamante ni su may morom lañ ma xam ne ma xam ne ëpp ma leen mérite une décision de justice ma xam ne ëpp ma leen mérite gënuma leen dara au contraire damay gis ne ñoom ñoo ma gën foofu ëppuma valeur parce que ñoo ngi dem benn benn certitude rek la ñu am mooy il peut perdre la vie à tout moment damay dem ah Ziguinchor lu bëri gis leen ñuy patrouiller c'est-à-dire que loolu pour man ñooñu di di toog foofu di am préoccupation ndax dinañ am kër wala duñu am kër wala ndax suñu kër am na lu ñu lekk wala amuñu lekk sa warul nekk seen préoccupation au moment où on voit beaucoup d'argent dilapidé ailleurs sur des futilités yoo xamante ni amul benn njëriñ donc te loolu ñu mën a waxal armée moom la ñu mën a waxal police moom la ñu mën a waxal sapeur pompier moom la ñu mën a parce que problème bi amoon na jamono yi ci sapeur yi ah, fii nii ci Malick si dañu xëy rek somme leen ne leen da ngeen war man jël naa ci ay ñoo xamante ni dañ ne ñun fii opportunité wul la woon pour ñun parce que nous sommes encore jeunes pour ñu mën a tabax yaa ngi dégg donc pour man am na ci benn dimension humaniste boo nga xamante ni war nañ ko bàyyi xel bu baax parce que en réalité ñoo ngi wax boobu ba tey ne ay sénégalais lañ am nañ ci droit mais duñ ay sénégalais rek. ay sénégalais lañ yoo xamante ni dañoo décider ñoom ne ñoom ñooy dem au front pour ñun ñu am tawféex je pense que aussi waruñu leen yemale ak benn Jibril Fall boo xamante ni moom këram lay dem liggéey certes mais di dem këram tëddi guddi nelaw ñee ñu jël leen privé leen de tout de leur famille et de tout ne leen dem leen au front c'est vrai ñoom ñoo ko def choix boobu parce que ñëpp mënuñu nekk journaliste ñëpp mënuñu nekk médecin ñëpp mënuñu nekk magistrat mais ñoom nag ñoo dem jëli bali li ñu li nga tudd léegi wax ne un un mutilé de guerre ak yooyu mais mutilé de guerre mutilé de guerre la kooku waroo ko yemale ak keneen waroo ko yemale ak keneen gëw ma ne mutilé de guerre dina dem foofu monsieur le maire naan day def cinéma je ne le pense pas du tout mën na def cinéma de mais gëw ma ne mën <laughs> day dem foofu naan day def cinéma dans ce contexte la ak li nga xamante ni ah wane nañ ko ci kii bi je pense que ne le président de la république c'est vrai que nee nañ dafa wax rek benn principe mais man li ma jàpp ak armée ni mu toll ak ni mu amee solo ci réew surtout sunu réew yi nga xamante ni dañu nekk di ko tabax ak rôle bi nga xamante ni mën na ko ci jouer jàpp naa ne le président am na la pleine mesure de l'affaire et que bu waxee ne na nañu génne huit cent million xaw ma sax huit cent millions man sa que ça peut signifier pour nee na ñu ñu kii leen je pense que ne fu wóor la ko teg ci renseignement yi mu am. bu fekkee ne ay collaborateur dañ koy nax nag loolu c'est autre chose. <laughs> parce que bu fekkee ne colonel bii nga xam dafa xam affaire bi moom nee na li muy ñaan président mooy mu annuler loolu mais c'est extraordinaire. loolu mooy le premier aspect l'autre aspect mooy bu boobu moo ci attirer suñu attention et on l'a remarqué c'est-à-dire bu fekkee ne ñoo xam dañu partager armée taxaw nii ci kanamu askan bi yëpp di leen xool. ñuy ñuy xàllu wante sutura parce que bi colonel tàmbalee rek ne ñii dañu démissionné armée même bu fekkoon ne benn jour lañ fa passé xam nga bu doon dañu commettre faute lourde wala ñu trahir seen nation ñu génne leen naa mën a comprendre mais ñii seen dund yëpp armée lañ ko passé parce que 2008 la ñu wax ay 2009 2011 te bu fekkee ne lii mu évoqué comme preuve ne loolu moo tax mu génn mais loolu jar na génn parce que victime d'injustice la loolu aussi il faut que ñu jël ko ci beneen fànn beneen fànn bi nga xamante ni am na aussi dans l'armée et puis xam naa dina dinañu secret xawma lan confidentiel affaire yoo xamante ni am na ci armée bi et que loolu aussi je pense que ne à un moment donné il nous faudra qu'on soit beaucoup plus regardant par rapport ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy jiite suñu corps d'élite yi sunu muy armée muy gendarmerie yooyu comment est-ce qu'on gère cette affaire là parce que gisoon nañ fi colonel livre colonel Abdou Aziz Ndaw bi amoon na solo trop malheureusement mhm. ça n'a pas fait débat capitaine Dièye sorteem bi mu fi defoon euh, ñoo ngi wax sànq ba tey naan c'est anecdotique mais c'est assez symptomatique aussi d'une certaine façon boo xamante ni moom la ñuy gérer depuis le colon les gens arrivent et conservent les privilèges du colon dóor leen ay droit de ne leen amu leen droit wax c'est la grande muette et c'est ça qui ko doon confier à un moment donné les conditions n'étaient pas bonnes ñu def grève keroog lañ ñuy dindi civil yi di ko commencé di ko jox armée parce que ñoom du ñu grève parce que du ñu yuuxu et le plus souvent aussi bien dans la police l'armée le cantonnement il faut qu'on en parle de la police ak de tous les autres forces de défense et de sécurité mais jàmbaar des fois c'est des conditions qui ne sont pas bonnes ils travaillent dans des conditions excessivement mais ñiy nekk ci terrain bi souvent ils ils ont des conditions difficiles la ñuy dund te malheureusement ñoom ñu war a sol seen robe avocat défendre leen le plus souvent c'est pas le cas et on parle en connaissance de cause on prend beaucoup de témoignages yoo xamante ni dañ naan ñun sànnu nu même mais mais pas en sécurité et après on vient tirer sur ces corps da ngay gis sax corps de contrôle bu génnee rapport am mais di ŋàññ corps de euh, défense et de sécurité ne ñoom ñoo gën a bëri corruption ñoom la ñuy corrompre ndeysaan ñoom du ñu mën a tontu parce que nee nañ grande muette la mais pourquoi ñu leen di corrompre pourquoi ils sont si corruptibles si tel est le cas je pense que il faut que ñu def ay réformes en profondeur il faut que ñu xoolaat la la la redistribution de nos ressources la redistribution de nos ressources parce que au même moment où on voit un politicien rek professionnel muy tabax ay immeuble am ñëpp di ci teg bët mu changer sa radicalement ñëpp di ci teg bët nga gis benn militaire boo xamante ni da koy romb taxaw muy stop. parce que amul lu mu jële kii il faut qu'on en parle. sa jàmp en sa jàmput bu weex bi moom.